barba jib na jëm ci jëmm ji nga xamante ne moom moo di nabu Leye nabu Leye bu ñu ko waxee xel yëpp dem ci coowal Aziz Dabala ak ki nga xamante ne moo di Boubacar Gano ñu naan ko yi gannaaw bu ñu génnee àdduna nag moom Nabou Leye ñu daal di leen ci euh, soupçonné rek ba daal di koy loxo mu nekkoon mbir boobee nga xam ne mi ngi am le soir du 18 au 19 août 2024 foofee nga xamante ne rek moo di ca diwaanu Technopole Nabou Leye ak juróom benn góor ñu daal di leen di teg loxo moom Nabou Leye nekkoon chambre 5 foofee nga xamante ne rek moom moo di ci diwaanu Camp pénal jamono gi gi ñuy wax ak yéen à travers Xibaar TV ñu ngi daal di xamal ne nag jamono gi à l'instant mais moom Nabou Leye nag daal dinay bénéficier wu nag ci apa liberté provisoire jamono gi moom Nabou Leye nag gannaaw bi nga xamante ne rek daal dinay taxawal ap pôle d'avocat jëmm ji nga xamante ne rek moom moo di nabule nag jamono gi nag mu mel ni rek yoon daal dina koy teggi loxo waaye lépp nag boobee ba léegi nag coow lu nee na kur askanu Sénégal di ko lamlaamee am nag amul Walf Net moo ñi daal di xamal bilee xibaar ba tax na sax ak lu ci mënti am information bi xibaar TV HD dina ko daal di toppaat ñu ñuy daal di xamal ba tey pôle d'avocat nabule dañoo defoon bilee demande depuis le 21 octobre bi nga xamante ne rek moom lañ daal di génn ñu gis ni récemment famille Aziz génn ba ne moo di Aïda di sœur Aziz Dabala nee nañ tam ñoom ba ñaar ci ay kenn waxul ne moo def wala deful waaye que justice soit faite ba ci yaayu Aziz Dabala loolu la daal di sàkk ñu xam kan moo rey doomam waaye itam ñu kan moo rey ki nga xamante ne rek moom moo di Wally mu mel ne rek jamono gi Nabou Leye naka daal yoon daal dina koy teggi loxo waaye koy placer sous contrôle judiciaire buñ ko waxee nag moom moo di Nabou Leye mënta génn réew mi dañ koy bàyyi rek mu daal di toogi këram heure buñ ko woowee rek heure buñ ko soxlaa rek ñu woo ko mu daal di wuyu si mu mel ne rek jamono gi xibaar bii la xibaar TV HD daal di jot en l'instant même jamono gi ñuy wax ak yéen mu nekk xibaar boo xamante ne askanu piki nan lañ ko fas yéenee jële ci libération bi nga xamante ne rek jëm na ci jëmm ji nga xamante ne rek moom moo di Nabou Leye nee nañ ñi ngi xamal ne Nabou Leye depuis sa cellule lim daal di xamle mooy laaleewu ma takkeewu ma defu ma defaaleewu ma reyu ma Aziz sama yoon nekk ci duma ma coupable kaddu yooyu la Nabou Leye yàgg wax foofee nga xamante ne mooy ci diwaanu camp ak lu ci mën ci am dinañ xool ñi nga xamante ne rek ñoo di ay juriste ci li ni ak ñi nga xamante ne moo di pôle d'avocat bu ki nga xamante ne mooy Nabou Leye waaye famille bu ñu yëgee li ci yan condition lañ nekk mbokk internet Xibaar TV HT loolu Xibar TV HD di laaj ba tax na sax yéen lañ koy laaj ci jamono gi nga xamantene yéen lañuy wax ak jigéen ki nga xamante ne moom moo di Nabou Leye bu génnee xar kanam gu yees au sein de la société sénégalaise nan lañ ko fas yéenee xool nan lañ ko fas yéenee wax loole lépp nag ay laaj la yoo xamante ne jamono gi askanu Sénégal sénégalais bu nekk rek bëgg na ko laaj moom fecckat bi nga xamante ne moo di Nabou Leye xarit ki nga xamante ne mooy Aziz Dabala plus de vingt ans ñoom ñaar ñuy daal di ànd ba tax na sax ak lu ci mënti am xibaar TV HD dina ko topp jàpp leen ne Nabou Leye jamono gi daal dinay am liberté provisoire